wér-gi yaram gi ak wàllum njàng meeg njàngale mi wàllum justice ci réew mi wàllum napp gi agriculture wàllum sport lii lépp ay mbir la yoo xam ne war nañu ko lijjanti daar daara ci ni mu gën a gaawee yéen a kaay gi di la témoin xëy diñu xibaar naan ñu Amadou Ba tëbb ñu ko rek ngir nag ab xam-xamam waaye nag dañu ko tabba ngir nag mu mën a lijjanti mbiri Aminata Touré ndax Aminata Touré ak na ko yàq maanaam ci biir làng a nga xam ne moom la ñu jël yóbbu ko ci njàng mi loole nag ab kaala ci école bi Abdou Karim Fofana mi ñu dénk wàllum commerce du nekk loo xam ne lu yomb la ci mooma ngir nag mu daal di koy lijjante waaye nag li gën a jafe ci réew mi lu jëm ci wàllum inondation yi ak nan la ñu koy saafara yéen kaay gii de laas nee na Matar Ba li nga xam ne moo ko sànk mooy lu jëm ci wàllum marché gré à gré yi nga xam ne jox nañu ko promoteur Mbaye Pay mi nga xam ne moo doon defar lu jëm ci wàllum stade ak lu jëm ci wàllum mairie bu ak ñi nga xam ne ñu yëngatu ci politique fare ca Fatick Matar Ba dafa amoon ay jafe ngir nag daal leen di dajale yéen kaay gii di enquête nee na Macky Sall jël ay ndaw dugal leen ci gouvernement bi ngir nag ñu mën a jàmmarloo ku ci mel ni Pape Malick Ndoura Abdou Karim Biram Faye ak Fatou Diané yéen a gi di Walf Fadjri nee na en tout am na loo xam ne jamono ji munta xaara war nañu ko lijjanti ci ni mu gën mooy dund gi nga ne dafa daal di cher metti ba jéggi tayoo askanu Sénégal nekk ci torox tànge waaye tamit rawatina ndaw ñi nga ne jamono ji amuñu liggéey ne waaye nag suspension la waxa réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar moom ak Le Soleil nee na mbooleem yi nga xam ne tabbu nañ leen ministre ñoom ñëpp démissionné naña yéene kaay gi de la Tribune nee na bu yees bi bi ko Macky Sall tegee ñu bare bari jamono ji ñi ko wër mer nañ ba maara détaali loolee na ko Macky Sall xam yéene kaay gi de leen foo xëy duñu xibaar naan ñu mbooleem député yi nga xam ne ñoom nee nañu ci tribunalum Askan Wi ñoom Abbas Fall ak ñoom Birame Souleye Diop ak ñoom Bara Gaye ñoom nee nañu li nga xam ne moo xewoon assemblée nationale amul lenn loo xam ne ñoom réccu nañ ko si bu dem bu doon tey dañu koy defaat te nag ñoom nee nañu lépp loo xam ne jëm na ci ay wàllum proposition de loi danañu ko def code électoral beek lu jëm ci wàllum criminalisé borom ñaari tur yi ubbi ay enquête parlementaire liggéey la boo xam ne ñoom danañu ci taxawa waaye tamit ñoom nee nañu maanaam duñu ko yombal benn yoon benn bokk yaakaar ci assemblée nationale waa Fra France Dégage ñoom kii nañu ab campagne campagne boo xam ne Macky